dina tuddaale Marème fay sàll mi nga xam ne euh, fondation service Sénégal wax nañ ne euh, tas na ko bam ne tasar xam naa li ñuy bëgg a dem a tax mu tas ko laa yaakaar <laughs> sama njortu waaye mbokk yi balaa booba ñu fàttali ne diw maam Binta Serigne Abdou Karim Mbacke euh, yore ko fii nag nekk fii ci tuuba Dian Daaru Minam 2 jàkkaarloo kër Cheikh Béthio diw gu ama am solo mu jël doomi sénégalais yu bari rawatina waa Touba di leen fi liggéeyloo diw gi nag xam naa ne ko ko mos moom nan bàyyi noonu ba nu <laughs> dem fa rek mbokk yi tey noonu ma ko waxee rek ni la ñuy defee Ousmane songo yàpp naa ne li ko dal man bokkuma woon ci ñi ko yéene ñu tëj ko kaso mosuma ko yéene aw yoo sax biiw ko ba sonal ko wala aw weñ tonk jàmm rek laa ko mas yéene am na nag ñoo xam seen yéene lii la woon am na ci sax ñoo xam jéggi na seen yéene li ñu def usmaan Sonko jéggi nañ seen yéene àggagun fan bëgg sax ñu àgg fa waaye lépp nag mi nga aju ci loxoy suñ borom man nag jàpp naa ne lu baax la lu baax la ci moom xanaa leen ci toftal rek ñaan yàlla suñ borom tabaaraka wa taala mu may ko ak dund ak wér te yàgg fi lool loolu ñu ngi ko koy ñaanal di ko ñaan suñ borom mi nga xam ne moo ko am euh, ndax lii am na lu muy wanewaat tëj nañ Ousmane Sonko ci kaso bi waaye nit ñi tëj nañ ko ci peuple tëj nañ ko ci xol yi boo gisee fan yi waa France seen manifestation yi seen génn bi nga xool waa yeneen réew yi ay nga xooli tamit bërki démb stade bi xale yi demoon nga xool daje yu am léegi Ousmane Sonko na mu fay amee loolu jàpp naa ne lu doy waar la tëj nañ ko ci kaso yi waaye nit ñi toj nañ ko ci xol yi xol nag kenn mënu faa àgg ba xam naa ko tijjil ki nga fi def kooku moom kenn mënu ko tijjil kii nga def fii ci sa xol bi mën nga koo tijj ca kaso ba mën nga koo tëj ca kaso ba waaye tijji ko ci xoli nit ñi loolu yombul te ki ko fiy tëj kat bi mu ko fiy tëj booba kenn amul pérection bu mu ko teg amul luñ ko teg waaye moo xool ci boppam ak suwaa boppam def analyse boppam yëg ne kii war na koo tëj ci xol yi loolu nag dafa am solo lool xol moom dafa am solo kon yàlla yàgg tëj ci xol yi Sénégalais yi am na ñoo xamante nii nag lii wane ne ñi dëggu woon ba léegi ñi ngi ci wet ginnaaw Ousmane sonk ñi ngi ci wetam ñi nga xam ne dëgguwunu dafa meloon ni saxaar guy daw yenn saa yi benn wagu deñ ñu dem ni nga xam ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñi mu àndaloon am na ci ñoo xam ay naafiq lan ñu raxoon ci bu ne Ousmane Sonko ne nan dem ñu ànd bu ne ñële ne nan ko te ñële ñu ànd nga xam ne loolu mënu ko woon a séparé waaye fi ñu toll naafiq yi ñu ngi tàmbali di wadd par benn benn di ruusaanu di des ginnaaw ndax xare dafa metti te fi nu jëm dafa doon yoon wu gudd te sori wala zina jaaxaadoo fii la naa nax li na subhanallah wa inna allaha la maxawul muxsinina waaw yoonu yàlla dafay gudd te sori te bari ay dagg eh, bari bari tamit ay ndog ndogaan moo tax ñenn ñi dañuy dem boo nee nan dem ci yàlla wala nan wuti yàlla ñenn ñi dañuy jóg téeméeri ni tey jógandoo téeméeri bu ñuy jóg am na ci yoo xam ne fa ñuy jëlee décision fa ñenn ñi di deñe ne duñ dem buñ ndoxee tuuti ñenn ñi ne ñoom i tamit sonn na duñ àgg ñooy àgg ñu néew la waaye ñoo ñuy àgg nag ñooy ñooy kuréel bu baax ba fi mu toll nag ñi nga xam ne ñoo topp Ousmane Sonko fi mu toll actuellement nag ñuy kuréel bu baax bi ndax bu jëkk mbooloo mi daa bari woon rek loolu gaa yi di wax qualité ak quantité léegi quantité bi moo fi des macha te quantité bi nag dafa ànd ak qualité yi tamit quantité bu bari la wax dëgg yàlla bu baax boo xamante ni li nu li nu wiise jàpp naa ne ni tam Ousmane Sonko da doon wax yàgg wax ne man xeex bi ñu may xeex. ne ñëpp jóg ñu jéem koo réciter ndax xeex la boo xamante ni teguwul ci ay kii loola ñu jàpp ne man bu may wax ne nan nan nan nan xeex mbir sàngam du man rek maa wax ëllëg leneen mën naa dal keneen loolu jàpp naa ne fi mu toll gis nga comme par exemple journaliste yi nga xam ne kenn waru leen woon a jiitu ci xeex wala défendre seenam réew ak doonoon troisième position wala troisième quatrième euh, position pouvoir gis nga ni mu demee ba yàq leen ba difficile leen boole leen tamit ñu ci bari tafu ci ginnaaw euh, APR gis nga bu fi APR jógee fi mu toll président Macky Sall jógee li ñu doon wax Ablaye Wade daan wax na bu may dem dinaa yóbbaale ñu bari waaye président Macky Sall dina yóbbaale ñu baree bari ci journaliste ñenn ñi ay politiciens xam ngeen ne ñi ñii ñëpp politiciens yi ñoom ñëpp ay ñoom Abdou Latif ay ñoom sëñ Mbaye Thiam ñoom ak ay ay gaayu yëpp ila axri ñoom ñëpp dañuy lang dañuy wadd bu président Macky Sall dem ñoom ñëpp dañuy wadd ndax amuñu amuñu ñaari nit ñun fi mën a dajale ay ñoom Pape jóobal ay ñooñu xam nga ne ñooñu danoo nekk rek di ànd ak président Macky Sall di carte seen i di di di carte seen i intérêt ak yooyu journalistes yi ñenn ñi di dem ñenn ñi bu nu président Macky Sall demee rek seen carrière jeex am na ci ñoo xam ne sax fi ñu toll ci journalistes yi bu nu sañoon président Macky Sall buy tànn Amadou Ba lay tànn ndax amadu Ba. am na am na avantage bu mu am dégg ngeen Cheikh Yérim déclaré ne ko yow Maymuna journaliste yëpp euh, Amadou Sall woo na leen Amadou Ba wax Amadou Ba laa bëgg a mooy Amadou woo na leen yow mi sax woonal mun naa ko mën kay nag ma ci génn fi mu toll xaw ma kañ la président Macky Sall di tànn candidat bii demal APR mën naa am sax jamonoy màggal gi par wetu màggal nit ñëpp nekk ci màggal mu daal di koy tànn mën naa am mën naa am waaye lu mën a am rek li ci am solo mooy. ñu ci baree bari ak ñeneen ñi homme d'affaires yeeg yenn politiciens yi yenn businessman yi bu président Macky Sall di jeexal rek ñoom buy dem deux mille vingt quatre buy jeexal rek ñoom ñuy jeexal da leen di yóbbaale ñi muy yóbbaale sax mu ëpp ñi Ablaye Wade di yóbbaale xam nga ne fi toll ña nekkoon ci Ablaye di ñëpp daw nañ làqu si Macky Sall ndax dañ koo comprendre xam nañ suñ koy jaar ngir mën a nekk ci wetam mais nag bu fi Macky Sall jóge nag kan ki ñuy àndal ki fiy nekkaat kooku kan lay doon kan lay doon. xam naa bu dee Ousmane Sonko moom jàpp naa ne gaa yu ci bare bare moom dinañ def ni ni kii def nu mu tuddati ni ni ni capitaine Touré def dem ca tool jéem a bay waaw xam ngeen ne àllu kii bi baax na nu mu tuddati àll Aliou Nguy Ndiaye bi nu mu tuddati sax àll jorof bi ñoom Aliou Nguy Ndiaye ñooñu ñëpp mën na noo dem bay nag ndax bu boobaa mbay di ñoom maîtriser nañ mbay te xam nañ ko. beneen bi ci des ñu jeexale ko ci ni ma waxoon Marème fay Sall. Marième fay nag wax dëgg yàlla euh, ñi ngi koy sant ci service Sénégal bi mu doon liggéey service Sénégal bi nag bokkut ak APR ak parti yi dama gis mu ci doon defal nit ñi di ci def lu jëm ci wàllu social di ci dimbali néew ju joole ji am na ci ay nit ñoo xam ca lan doxe faju am na ci ñoo xamante ni jàppale ne leen ci loole mu doon def nag kenn du ko xeeb ndax askan wi li nu moom mu delluwaat ci moom mu organiser ko dajale ko delluwaat ko ci askan wi loolu sant rek lañ koy def vraiment sant rek lañ koy def man nag dama koy sant rek en tant que sénégalais bu mu doon liggéey mu nekk fi dama koy sant ci côté boobu waaye man euh, mësuma koo gis mësuma joxanteeg moom loxo yooyu de agsi mësta agsi ci man waaye ña mu agsi ñoo man benn lan ndax ay sénégalais la ko jox te ñooñu dañ caa lottu te ñooñu ñoo ci gën a yey ñoo ma ci gën a yey ñoo ma ci gën a sañ kon nag dañ koy ñaanal jàmm nee naan tas na fondation Servir Sénégal bu Marème Faye sàll bi tas na ko loolu nag damaa jàpp ne kon dey tàggoo rek xam naa la ciy defaale ndax gis na ne liggéey na ba wàcc moo tax nag moom it na ko Sénégal na na sant sénégalais yi bu baax a baax ndax bu fekkee ne dem na ba tas ko te sénégalais yi ñoo ci doon dugal seen alal di ko jox mu ci doon dem te organiser woon na ko nu baaxe tamit noo xamante ni daawut nekk eh, di bind kenn dégg ngeen yim ci doon expliquer yu bari génn na ci wax ci te saa bu masee jóg di wax ci lool rek lay wax ci fondation bi lay wax doonoon ko tamit ku ku woyefoon la ku wàcce woon boppam la doonoon koo xamante ni sénégalais bu eh, ñëpp ñu bari ëmbal ak cofeel ndax ci ci woyefam ci ci ci mën a kafam àgg na ci sama ma daan fecc te yooyu wax dëgg yàlla xañ na suwaa boppam la sax waaye nag dama jàpp ne ku rëy du man loolu ku rëy du man loolu yooyu yëpp na ay bëgg-bëgg boppam la ak yooyu ànd ak lii lépp nag ab sénégalais la woon yaay la fi woon bàjjan la woon tànt la woon doon dimbali woy néew ju doole ji loolu wax dëgg yàlla cant ak ñaan lañ koy defal yàlla def ko ba beneen premier dame première dame bu fi mën a ñëwaat bu ñëwaatee tamit gën koo ëpp lu mu fi def ak lu mu fi sarwi man nag bu fekkoon appel bi moo ko fi defaloon mooy jamono prix alxuraan bi laa ne ko mu teral leen bu baax a baax a baax na gis naa ne bëgg na diine te taxawu nañ loola nag xañ na sama message sa àggul ca moom wala mu àgg ca ñam ko war a ña ko war a àggale téye ko wala moom mu dégg ko tamit fekk mu dëneer lu ko wala fekk lu yàlla baax na waaye lu ci mën a am rek ñu ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm eh, di fàttali ne nag bu baax a baax ne yéen a ngi doon topp seen site bi ñuy wax Tanim TV Euh, ñu ànd nekk ci wee màggal gi nag fas yéene jamono yi nag incha allah di ngeen gis yu bare bare ci programme màggal gi ñu indi leen ko ndax loolu tamit actualité la te it wax dëgg yàlla euh, bokk na ci li nga xam ne nit ñaa ngi nu ciy xaar waaye ànd ak loolu lépp rek ñu ngi leen di tàllalaat loxo ngeen gën a jàppale site bi bu baax a baax ci seen i moyens yi ngeen man te li ngeen cee def it yàlla rek tax yàlla rek tax yàlla rek tax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.